bismillah Assalamualaikum warahmatullahi rahmatullah internetu Dakaractu yi ngi leen di nuyu bu baax baax di leen ziar di leen ñaanal di ko ci mu ngi point 1 fii ma point 1 ma taxaw ko kole. xam ne restaurant li tax nag tey ma ñëw fi dafa nek place bo hamne ni nii yaakaar naa ne am na bo ni mbeur bu mak la macha ci lamb di murum dakar di espoiru lamb manam yaakaari lamb fi xamna na kër gi yaakaar naa sax bu nexé man na ni borom kër gi moy président ekrem moom mbeur mi sax est ce que ci ak ndawam bi mu gëna nek xalé est ce que daawul dóori fi war di daan dolem moy kan le champion du ko tud damay baye buñ dugg ci bir xëy suma su borom kër gi suma ko fi dina wax mbeur bi kan la bu ko defé nak ñu waxtaan ci lool waye Bamba ñaa bul faté gis nga montre bi ma takk ni Bamba ma li montre bi ngay gis ni Lamine bu TV Lamine sek série mama Baye Muhammad, Lamine lom de Loro le futur maire de Loro momako ma ko kon Lamine yalna na jàmmam yàgg sama rak joj sama xarit du mëna ñak mais kaa ñu dugg ci biir xale jigéen ma fekk fi mom day konté wala lu muy def maam nga jam dal bi seigne ñu ne Mbaye Ababacar Mbaye xalifa hmm. yaay dama Ndiaye Babacar Sadiq Mbaye ci loo ne. maa ngi euh, nga tiim téléphone boo xam ne gis naa ca kaw sëñ kër si te mel ni fii ngay liggéey tamit boroom kër gi Ababacar la tudde wala. Hmm. Hmm. nga tudd nan yow. Khadija. Khadija noo sant. Taal Noxo. Taal dëkk fan. Grand Médine. Grand Médine loo yore fii yow comme wàllum liggéey. looy liggéey fi maanaam loo fi yore ci wàllu liggéey fii. bon damay def caisse damay def cuisine en même temps ah, da ngay da ngay togg waaye da ngay compter xaalis di ko wañ koppar gi mhm. ana borom kër gi mu ngi fi mu ngi si biir mu ngi ci biir waaw kon nañ dem dugg ci biir comme ne na borom kër So, ngi ci biir du ma fekk ko ci borom gi Bamba ana borom gi voilà madame ci ne yow yow lan ngi lay ça va bi nan la. Mati Mati waaw yow loo yore ci kër eh, gi man maa ya seere fii saal bi may seere ah yaay seere saal bi ah daa nah, mel <laughs> ni war nga ngay defar nii de war nga wi neex na ma jël waa jëlal neex na trop ah bismillah kay agasa bismillah bamba war nga wi neex na neex na ay Khadija kenn du yow ah, mati mati Khadija kële ma yóbbaale caissière ba waaye soxna mati macha allah kon bàyyil ma Andre. ma dugg a bamba bunt bi moom na wéy ak taalibe rek bamba borom kër gaa ngi noonu wala fi ma jëm see ngi nii bokk kon nag wax naa leen ko léegi may dugg si yaakaar naa ne fi ma leen doon wax ne foofu lay dugg yegg si naa fa bi ma yegg see nag ki ma fekk wala ki may jàkkaar loolu moom la ñuy wax Mbaye Diop moom nag moom mooy président écurie Fass bennoo egri boobu nag bu ñu ko tuddee xel day dem ci ndakaaru ak Fass rawat na xale bi nga xamne nak mom moy ada fas Fass nak ku ne gis na jamono yi tek tek yi nga xamne moko dabon ba yalla dogal nak yakar na ne ñu atté ko sa tribunal ndakaru ba mujjé ko bayyi tay nak ki nga xamne ni yakar na ne mën na wax lu bari ci ada mom la jakar lol ndax buñ né fas Benno kuy président bu mbay job lañuy wax kon defe ne mom mo juddule écrit nañ na kon euh, Bamba ki mo moo ada fas ak ay moromam mbay mang lay nuyu di légère waaw Babacar ñu ngi lay ziar di la sant. di la gërëm tam ci ci teewaay bi. waaw ñu ngi sant waa Fass yëpp. di sant euh, staffu Ada Fass. di leen gërëm ci seen taxawaay. waaw yéen it ñu leen sant. wax dëgg yàlla si seen taxawaay. ndax bi mbir mu amee ba léegi kenn noppalugul. waaw yéen ñëpp boobu ba léegi yéen a ngi si. yaakaar naa ne jotaay bi sax bëggoon nga ko bu yàgg. waaw <laughs> boobu ba léegi yaa ngi may woo man la mënuma wax ci dara fi mu ne nii. waaw ndax am na xeetu wax yoo xamante kenn mënu ko wax ci biti. ara buñu bëggé wax ak mom mënuñu wax mom ci média bi dafay mëna tok rek ñu wax ko suñu ay dëgg mais mënuñu ko wax mom ci média mu melni tay fi ma la fekk sa place liggéeyukaay kay la fekk parce que kër gi yaakaar naa sa place kay te bi may ubbi sank ne naa kër gi yaakaar ne mbeur bo ni champion la euh, di mbeur bu mag parce que ma aada nekatul mbeur mu ndaw loolu la yalla dogal defe ne ay ndortelam fi la ci place bi yaakaar naa su ma ah, jot na fe euh, daan dooleem yaakaar naa fii ci kër gi nga xam ne moom nga nekk wala. waaw loolu moom am na am na euh, ndax euh, bëri na comme tolof tolof yu koy dal mm-hmm. waaw tolof tolof bi man kenn xamul moo ñaata la tolof mm-hmm. moo waral ñu bëri taay si mbir yi waaw ndax bi mujj bi bi njëkk sax lay wax euh, li waral ñëwam fii boobu ci tolof tolof la jóge ci restaurant bi mu fiy ñëw. waaw bi mu fiy ñëw ci tolof tolof la jóge woon ndax ku fàttaliku combat Gris Bordeaux ak Balla Gaye bu njëkk ba. si ada aada amee woon ay problème ba ñu ko. boobu ma ndax supporter Gris. Euh, waaw yeneen yi si xew rek xam nga bu ñu la téye moom ci yoon bi lu ne da ci xew. Ah, waaw waaw nañ ko ci yoon bi waaw ba jàllale ko jugé ko ak yëpp tëdd na ci lu toll un mois waaw ñun ñii ñëpp tey écurie bi kii mooy suñu secrétaire général mooy Adama Soumaré. Adama Soumaré waaw ñun ñëpp dañu mobiliser utal ko avocat. avocat waaw ñu àtte ko bàyyi ko mu génn. bi mu génnee nag yegg si la dere baa tey génn na bu njëkk ba. ah si la waxtaan ak moom. ne ko li nga nekkee nii du du liggéey. Mhm. amul njëriñ boobu xamaguñ ko ci làmb nag 2018 la. 2018 waaw 2018 moom 2017 la dugg si làmb. Mhm. waaw si laa jël scooter jox ko ko. ko léegi da ngay ñëw fii ngay livré. Mhm. waaw nga nekk si dara di yëngu si dara boo wàccee faa sorul nga dox dem ñibbi. bu boo xëyee nga ñëwaat. pour mu nekk si activité. waaw loolu moo waraloon ñëwam fii. waaye aada dafa am lu ñu seq lu jiitu euh, mbiru làmb. ndax ada talibé la woto woo té ñu bokk man mom ci benn sëriñ bu ñu jokk kon ada warna ko mëna doy wax dëgg yaag la conseil war ko mëna doy di ko wax muy dégg di ko digal muy def di ko tere muy bàyyi ndax ko xamantene moy sa jëwrin ci fi nga jokk nekkaat sa président écurie kooku bu dé mom moy wax té doko ko dégg wax dëgg yàlla kenen mënul wax mu dégg donc dañ koy gëna ñaxat wa gën ko ñaxat jéggalu bi ñuy def nak dañ koy aduna yépp waaw ah, àddina yëpp ñëpp la ñuy jégalu ndax euh, dëkke jégalu moom bàyyi tooñ moo ko gën <laughs> bàyyi tooñ moo ko gën waaw loolu na moom moo ko moom ndax jégalu moom moo waroon génn fi mu ne nii jégalu ñëpp mhm. te loolu xam naa ne du du yàgg dina ko def day génn jégalu ñëpp ndax ñi si sonn dafa bëri loolu lay wax léegi ci stafam voilà waaw journaliste yeex xam nga mhm. ñëpp a ngi sonn ñëpp ñëpp mhm. chaque instant ñu ngi lay woo boo bëggul wax sax foog nga wax parce que ñëpp dañ lay interpeller di la wax manager yi ñu ngi lay woo yenn promoteur yi ñu ngi lay woo ëxlu làmb ñëpp ñu ngi lay woo waa Fass ñu ngi lay woo ñi la xam ñëpp ci aada Fass ñu ngi lay woo ba ci ñi nga xamante ne sax fii lañ ko xamee woon dañ lay woo sa booy bi lii sa booy bi lii moom nag moo war a yërëm boppam yërëm ay supporteram yërëm nit ñi tourner page bii nekk si leneen man loolu laa gëm mu mel ni loolu nga gëm yaakaar naa mooy li ko jig yaakaar naa te moo jig ñu baree bari wala sax moo jig ñëpp nekk ci yoon bi nga xam ne rek moom lañ jàpp ne mooy bi gën euh, waaye moom a aada mu mel ni euh, jamono yee balaa lii di am man dama la woo bëgg waxtaan ak yow ci bi mu ci demee ci benn soirée suma jumul Wally Seck la ba xaw fa jàppante coow loolu jóg ñu gisaat ko ci yeneen i soirée ma woo bëgg waxtaan ak yow nga ne ma noo may ma mu mel da nga sentiroon lii day mu ngi ñëw ba tax nangu woo ko na wax ci jamono boobu ba par la suite fan yi ñu dégg ne am na altercation ak ay nit ba jàpp ko ba defeere ko ba mu atte ko tey da nga sentiroon lii ba tax nanguwoo ko na wax wala. waaw xam nga xam nit ki xam jikko moo ko gën waa aada dañ ko dañ ko xam dañ ko xam maîtriser ko yooyu muy def ni aada dafa bëgg ñuy coow saa seen na ci moom bu toogee ñaari fan ñetti fan kenn waxul si moom dina def luy tax ñu wax ci moom jamono yi génn na ne ñetti combat yi moo ko dese. moo ko adduna yëpp di si coow ko ñëpp di ci wax. lolu wessuna mu dem xeexaatu xex bi moy deuxième xex ñun nag ñu dëkku mais fi lañu ñuy di yek lépp wa comme niko chamboule mi waxe ko xamantene do ko gis do xam fu muy fanaan do xam kañ lay teud kañ lay yew kërëm sax mënu lako xam ndax bu dëkkee fi tay kenn benen jour ñu la fële la nek legi kon yow actuellement ni xamu fan la loger ni actuellement. ada xamu xawma xawma fu mu loger wax deug yàlla ada xamu fu mu loger fi bërëb bi gëj na fi gëj na fi yàgg na. su ma la waxee kañ laa gëj gisante aada wax dëgg yàlla moo tax ma ne la sànq am na loo xamante ne sax bëgguma di wax parce que fi mu ne bëgguma di wax lépp si média bi mënul nekk mais booy wax mooy indi wax fi mu ne boo may fii rek fi ne damay wax te bëgguma yegg fenn fi waaw mais daal euh, xam naa ne am na waxu biir boo xamante ne dinañ ko waxtaan. dinañ ko woo mu ñëw ñu waxtaan ak moom li mu mën a dégg waaw ñun jubluwuñ lu dul jàppale ko hmm. amul dërëm boo xamante ne jóge na ci moom di ñëw ci ñun. ku nekk sonn nga ci moom depuis bi mu tàmbalee ba léegi. waaw Adama Soumaré mi may wax am na combat yoo xamante moo ko defaral ay t-shirt yëkkati xaalis bu bëri di ko may ainsi de suite ñeneen ak ñeneen Pape Mbodj da koy woo di ko conseiller di ko teg si yoon. kon euh, président maanaam aada su ma la déggee euh, maanaam da nga jàpp ne yi muy def nii da ko maanaam ci bakkanam la ko teg wala ci nafsoom wala yow na nga ko gisee yow. mais amul amul amul leneen ci nafsoom la ko teg. ci bakkanam la ko teg bëgg-bëggam moom la. li mu naan ñu jàpp tayu ko. ah waaw bu dee tayu ko tam man gisew ma foofu wax dëgg yàlla. gisew ma ne tayu ko bu dee dafa am mystique moom kenn ëpp ko mystique warul xoole bu loolu di ko dal sax xanaa koy teg loo xamante ne du ko tey muy mu koy def bu fekkente ne moom day veillé si boppam war na fexe ba dara du ko dal luy jóge si nit waaw ah, moom war na fexe ba protéger boppam si côté boobu. ndax kenn ëpp ko mystique kenn ëppaloo ko ay sëriñ kenn ëppal xam gën a ko xam kër yu baax yi waaw kon nag côté boobu man dama koy exclure. maanaam yow gëm voilà déedéet dama koy exclure. waaw waaw moom nag moo war a focus si boppam. xam li ne si kanamam. xam carrière am. waaw li ko desee bëriwul ci làmb li ko dese bëriwul waxuma ci ay nombre de combat yooyu muy wax waxuma loolu mais am na nu muy demee fi mu ne ñiy nekk féete ci kaw ñëpp li leen dese si làmb bëriwul bu ñu fi jógee ñoom ñooy nekk ci kaw. ñoo ngi nekk ci kaw voilà donc moom tey bu vous avez une chance ku wala am chance des ku de guerre wala. moom yàggul ci lamb aada yàggul ci lamb 2017 nga dugg ci lamb yàlla jox la tour bi mu la jox mais chaque fois bu defee génn ñu ne aada xale la aada xale la boobu laa bëgg ñu tëj ko loolu jeex na. page boobu nañ ko tëj aada aada nekkatul xale. bu tamit kilifa la am nga sa soxna na sa ginnaaw yaa am chaque fois da ngay dégg ñu naan ada amul staff wala ada amul xana amul ay dirigeant xana amul ñu conseil mais des ay kilifa ñoko war Adama limal ni ki luy cadre de vie tay mom moko ci mairie bi. mairie Dakar mairie mairie ah, Fass Fass kilifa hmm. Hmm, mi à la poste Des syndicaliste bu mag ñep xam ko ñu ngi mais xam na dafa am ak ñeneen ak ñeneen ñi fa nekk ñëpp ay kilifa lañu man mii di wax tey écurie Fass Benno bu fekkee ci ay at la maa fi gën a néew néewli ay at man maay président bi nag loolu yàlla ko def mais man maa fi gën a néew néewli ay at ñii ñëpp samay kilifa lañu wax ah. donc aada il est bien entouré mais bu dee nag dañ la entouré te doo déglu ñu la entouré tam amul benn njëriñ amul benn njëriñ aada du déglu kenn du wax ak kenn soo ko woon léegi di ko wax waaw la lay wax mais bu génnee day def lu ko neex. tey boo bëggoon mu ñëw fii léegi ni nga woo ko dajal ñaata yoon lañ dajaloo fii ñun réunion di ko xaar mais du ñëw. Hmm? mu dem nekk si leneen. da ngeen koy wane ko dañoo bëgg a daje ak dañu la soxla yow dañu bëggoon nga ñëw. mu ne leen waaw mu ne waaw ba pare ñu toog di ko xaarat mais doo ko gis ñii buudewu ñii gedd ñii mer dem mais loolu ba kañ mënuñu continuer ak moom ba ba toujours. mënul nekk comme ni nga ko waxee nii léegi yéen kon léegi actuellement tey fexe ngeen ba yàlla dogal na àtte nañ ko bàyyi nañ ko mu génn. actuellement kon ban décision ngeen di jël. à partir de tey maanaam ban décision ngeen di jël ci seen diggante ak aada. xam nga décision moom ñun amuñu décision bu ñu la naan lii la ñuy jël décision bi règlement intérieur moo koy désigné am nañ règlement intérieur lépp mu ngi ci secrétaire général bi lépp pare na. lépp lu écrit bi waaw lépp lu règlement intérieur maye dinañ ko dinañ ko teg ci ci moom. moo xam positivement wala négativement en tout cas jóguñu pour yàqal ko dañ koy defaral waa ndax aada fi ñu toll nii dafa dafa war a xamaat boppam daal gën a reculer dellu ginnaaw yii yëpp ñu koy dégg kenn waru ko ci dégg ay soirée ay demee noonu yooyu yëpp kenn waru ko ci dégg bëri na nag ay moromam yu daan dem soirée bëri na ay mbër yoo xamante ne daal dañu dem soirée di ñëw mais dafa am nu ñu daan gere seen carrière ba loolu du feeñ Moussa Gueye saa bu bëri woon daan na koy gis soirée yu sundur da daa gis si yenn kii mu dem ñëwaat mais nekk fa dëkk fa xaw ma sax lan mooy ndeyu yow nga dem soirée ba soirée bi jeex waxuma xeex sax bañ la naan génn leen dañuy bale mais loolu ku am personnalité sax du ko def ku am personnalité bu demee soirée trois heures du matin bu da ngay génn ñibbi kenn du yëg sax booy ñibbi mais moom foog mu def bruit ñu gis ko moom moom moom moo mel noonu foog mu def bruit wala mu yëngal dara bu dara xewal sax mu am lu mu def waaw pour nit ñi dégg ko wala nit ñi kii loolu loolu jigul kenn waaw boo koy def di rëcc nag mën nga rëcc benn yoon ñaari yoon ba ñett yoon mais li lay dal buy ñëw du la tàggu yow du la tàggu kon moom na xoolaat boppam. waa xool ginnaawam xool ñi sonn ci moom istafam sonn nañ ci moom ñu ngi si ginnaawam fu ne écurie bi sonn nañ ci moom yaa ngi dégg mu nawloo nit ñi aussi ba ci mbër yi nekk ci écurie bi yow na ngay nekk say morom yàlla tàccu la yow la njëkk a tàccu d'accord mais yow kese nekk fu mbër yow yaa fay faye ko ay millions à part amul keneen ku fay faye ko ay amul. te ay morom ngeen pourtant ben ar ngeen magante ak yoy dëkk ci gox bi mom lan noo ko war ci ñooñu moy jàppale leen top sen ginnaw di leen tagat di and ñom di entraîné di ñëw ya nga dégg bu fayé ko yëkëti xaalisam may leen ku ne mu jox la nga yéene bok ñu ne sa ginnaw yéene écurie bi défar sa image am na loo tay ne mën ko jàng si si si si yenn mbër yi xam nga Balla Gaye te def dafa rafet té lu rafet dañ koy tuddu mhm. ñu jox la tay billet mak nga ne ah billet bi kat. jox naa ko sama préparateur mystique. Mm, Thierno Ka Thierno Thierno Gueye jox naa ko ko. ñu may la terrain nga ne terrain bi kat sama entraîneur bi laa koy may mbay sàmm loolu dafa rafet. dafa rafet et fi nga dëkk gox bi nga dëkk. tey defi bi mu war a am suñu suñu trésorier général daf ko ko mos wax. ne ko défi bi nga war a am tey mooy yow phase bi nga dëkk li nga xamante ne Moustapha ngay réussir ko Mbaye ngay réussir ko yow da nga war fexe réussir ko mooy nga am kër biir phase. aada loolu moo waroon nekk projet am tey. waaw am biir kër voilà très bien biir Fass dafa yeewoo loolu mën na sa objectif mais li muy def nii kañ lay am yow yaa ngi yaa ngi root feesalu ko di tànk di tuur kañ ngay feesal doo ma sa feesal doo ma sa feesal aada fayako na nangam ngay dëgg ñi naan aada lii lay fayako nangam te doo gis fenn ci moom. kon yéen maanaam ci wàllu payooram ak yooyu amu ngeen ci benn information ci di ko ci xelal muy def ni xaalis ak yooyu. bon loolu nag am na wax dëgg yàlla koo xamante ne moom moo koy xelal. ndax côté boobu kenn ku nekk dangay xool ki la doy ki nga wóolu nga dénk ko si mbir waaw Momar Gueye moo yore ay mbiram voilà ñu ngi koy nuyu au passage wàllu finance yëpp ñu ngi koy nuyu au passage waaw moom it léeg leen mu dem ba xaw a lott xaw a sax ñu ne ko jàppal rek ndax ñun nii dañuy doon jàppal ba xam nga donc doone fii laa yem boy dimbalé nit wala nga koy jàppale doone fi la mëna yam wala lu mu metti metti yow jappal rek xamné dina mësa sa wala dina mësa sa légui voilà ma ñëw ci cas bi amul bërki dem ba tax ñu arrêté won ko tay til bi nar bi manam dañ ko atté bay ko définitivement wala dañ ko jox sirsi ak itam mbiri nu mu kii fofu wa fofu mom xam nga coow la woon bu am ci biir bërëb bërëbu kay wa koku xaritam la daf koy jappalé ci ay lambam ki mu doon dëgg. mi xamna limay wax ñeneen ak ñeneen xam nañ ko dafa daan yëkkati du mot un million si billet may ko ko ki mu jàppanteel nii. Hmm? mooy borom borom boîte bi muy Nino. kon kooku mën naa ne peut-être erreur la xam nga ndax Pokola moo doon jàppal ne mu dugg ci am nu mu def ñu ñu jàppale moom moo fexe ba Pokola daw loolu la policier yi wax moo ko rawale ñu jël ko moom téye ko donc c'est pas méchant sax dëgg la mais dafa am foo xamante ne waruñu la fa fekk am na bërëb yoo xam ne bu ñu la fa fekkee lu la fa dal yow la. waru fa nekk réseau lu mu toog fa ba yenn heure yi ba ñu ñëwoon ci soirée bi ñëpp ñibbi nga toog fa ba yenn heure yi loolu moo dul yoon waaw loolu moo dul yoon. Mhm. kon sursis lañ ko bàyyee wala wala wala de euh, dañ ko kii. waaw bàyyi ma nag liberté conditionnelle la. conditionnelle liberté conditionnelle mooy chaque mois. ajuma bu mujj ci weeru dafay ñëw présenté wu ñëw signé. Hmm. wane na maa ngi ci réew mi demuma dikkuma maa ngi fi. actuellement nii loolu la ko actuellement loolu lañ ko attee. waaw ba su waree voyager nag loolu beneen procédure la encore waaw loolu nag avocat yi ñoo koy dox. loolu mu ngi bëgg a diis. avocat ñoo koy dox waaw waaye loo kii rek mu kii moom. Ah. waaw xam naa ne avocat yi ñoo war a dox loolu. pour waree voyager wala yu demee noonu. waaw mais daal li koy waxaat daal moom dafa war a dénkaane boppam dafa war a dénkaane boppam ñu koy wax muy dégg jaaral nii muy jaar noonu ku ñuy digal ngay dégg kenn mënul fexe ba doo jëriñu waaye ku ñuy digal doo dégg kenn mënul tax nga jëriñu. kenn nag bu loo mën di am moo xam ne ay ñaan lax yi sëriñ lu nu mën doon nay déglu nit ñi di déglu. moom du ngay avancé yi promoteur. boo côté boobu nag euh, da ngay dégg si réseaux sociaux yi ñu naan am na combat ak diw am na combat ak nangam mais au niveau de l'écurie fii amagul benn combat. bu leer kii voilà amul non amul benn combat waxuma bu leer amul lan amagul combat. ah amagul benn déedéet amagul benn déedéet amagul benn combat. waaw parce que ñu ngi doon dégg Ada Fass ak de Guerre. Mm-hmm. Ada tey sax gis naa ci ay kii mais ci TikTok. ñu naan Ada fas ak Ama Baldé. maa ngi gis ay maa ngi gis ay wax quoi mais mm-hmm. euh, yow ne nga ci seen écrit moom. Mm-hmm. Ada amagul combat amagul benn mbër bu ñu ko nomee. Ada amagul benn combat boo xamante ne bu officiel la. combat mënul am te jaaral si ñun c'est impossible donc amul benn combat boo xamante ne bu officiel la nit ñi nag am nañ droit wax am nañ droit plébiscité aussi. combat diw ak diw dina neex wala diw amagul combat pourquoi pas moo aada wala diw waxoon na day may chance aada lu tax ñu ko ko jox yooyu mën nañ ci wax loolu amul solo moo mais au niveau interne fii de l'écurie amagul combat te ñun bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu kiwul lu mu tudd bu ñu accordé wul benn combat benn taxawul. mais dafa mel ni su ma déggee waa Alburax ak waa Gaston production est-ce que aada joxe fa kàddoom ak Ménage Sem wala. waaw mais loolu ñoom lay engagé. ah Sem bu joxee kàddoom aada joxe kàddoom. manager actuellement nii. saison bi tëj na. defar nañ suñu règlement intérieur yu bees. amagul benn manager bu officiel au niveau de l' écurie amul benn manager boo xamante ne manager écurie bi pour l' instant. voilà. kon aada ki koy doon ko engage actuellement officielatul pour aada actuellement. waxuma aada de mais képp kuy lutteur ci écurie face Benno amagul amaguloo manager fii saison bi di ubbi nag kenn ku dina xam kan mooy doon sa manager mais fi ñu toll nii kenn amagul manager. kon su joxee kàddoom feneen tamit euh, wala euh, ku ko daan menacer kon wax wax jooju yéen du leen engage loolu baa tax tontu loolu dafa joxe kàddoom waaw dafa joxe kàddoom kàddoom la joxe. kàddoom la waaw mais fii ci écurie bi moom amagul combat. salari jiin bismillahi ma dee ci door maam góor gi njaay sutub maram jiin bàyyi maam maram njaay